billah bismillah inna la asalaamualeykum wa rahmatullah yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci turu kër sëñ Tuubaa gi nekk ngumba ngéwul di ñaan sunu kàddu fekk ñëpp ci jàmm di ñaan Cheikh Mamadou Muntaxa sunu borom may ko fan bu gudd lool te ànd ak wér ah, sëñ Moustapha Modou Mbène tamit xalifa général des Baye Fall sunu borom may ko fan bu gudd bu ànd ak wér ak mboolem kilifa yi ne ci yoon wi yëpp ak mboolem taalibe yi. di li waral woote bi nag bisu alxuraan bi sëñ Saliou santoon waa Ngumba te jaarloo ko ci këram gi ci kër sëñ Tuubaa gi nekk Ngumba moo waral woote bi bis bi ñu jub ko muy gaawu bii di ñëw ñu bëgg woote bi rek mbokk jullit yëpp yëg ko. Euh, ñu fas yéene jox kaddu gi sëriñ Gora mu faram fàcce leen ko. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen mbokk jullit yi yéen mbokk taalibe bi ñoo ngi fas yéene yëkkati ay kaddu muy ndéglu bàyyi ko sëriñ Mouhamadul Mountakha da ko ñaanal saa borom fanam ba lim naan lépp mu yeggale ko. wàcc ba ci Serigne Aliou Diop jëwriñu kër Serigne Touba Ngouma Ngeewul ñoo leen di soññ di leen liggéey bi nga xam si ne joroon ndigal Serigne Cheikh Saliou Mbacké mu jox ñu ndigal jox ko waa Ngouma ak yëpp muy ñaar fukki kaamil ak li ñu xasida yi takk daf ko àddee Serigne Touba ñoo ngi leen di woo ci liggéey bi samedi biir njëw mu tombé la kaat ndigal li mooy bu ñu xëyee jàng alxuraan ñaar fukki kaamil juróom-ñett ak xasida Serigne Touba yi daf ko àddee Serigne Touba ñoo ngi ci woo mboolem daare alxuraan yi ak mboolem jullit yi di ci woo kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi ñoo ngi ci woo mboolem daare yi ne ngumba ak li ko wër di ci wo wa keur serigne touba ak wa karam cheikh rayen fall ñoo leen di xamal ne liggey bi lool la serigne mohammed ibnu serigne mutala mbake dara tewa jotaay bi ci ndegelu serigne muntaha ci ndegelu serigne pap ko de lo ñoo ci wo mbolam jeeru mbay kenn goor ak jigen mak ak ndaw ñoo leen di woyoo ñep di leen xamal ne nak ginnaaw ba nu wooyee kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak suñu mbokk taalibe yi Serigne Diop ne mi ngi yit ay kaddu da ci woo mboolem jëwri suñ tubaay ak taalib suñ tubaay ci liggéey bi nga xam si ne Serigne Cheikh Mbacke moo na ko joxoon muy ndigal lu bàyyi ko Serigne Touba muy kër Serigne Touba gi nga xam si ne mboolem kii jullit rawatina ngay murit ne ci tund bi ak dëkk bi sa yitte la ndigal la lu bàyyi ko Serigne Saliou Serigne Aliou Diop nee na mi ngi ci woo ñëpp bàyyiwu ci kenn mi ngi tàllal ñëpp da xam ne nag lii mooy carte yi nga xam ne moom la waroon joxe ak lettre yi ak soññe bi mooy woote bii képp ko dégg rek xamal na mooy sa soññe xamal na mooy sa woote xamal na mooy ndigal li nga xam si ne moom la jot ci kër Serigne Touba gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakato samedi la la 4 fii ci kër Serigne Touba gi jërë ngeen jëf. jërëjëf sëñ Gora euh, waaw mbir mi gàttale na mëtale na euh, liñ ciy dolli rek mooy ñu bëgg murid yëpp xam ni ndigal li sëñ Saliou boobu yi euh, murid yëpp la ko santoon ci kër sëñ Touba gi. sëñ Mountakha tamit ci yeesal gi daanaka da koo bamtuwaat ni na ko murid yëpp def seen yëfi bopp kenn ku ne war ngaa jàpp ni xëy na yaa war a taxaw ca kaamile ba mu mët yaa war a taxaw ca benn ya ba mu mët yaa war lépp daal lu ñu fa war a def lu ne rek murit bu ne na jàpp ni moom la war léegi nag li war eh, kenn ku ne si bu ko ñëpp songee dina wayef ci kenn ku ne si ñun ba tax na ñu ngi ñaan kenn ku ne def ci loxoom kenn ku ne def ci pastéefam kenn ku ne def ci yitteem jërë ngeen jëf wasalaam